li tax ñu ñu jug pour euh, wax ni xale yi tey jii nanu bàyyi immigration clandestine bi premier des choses bi nga xamante ni moom la état bi war a def mooy une bonne communication boo xam dafa war ci diggante gouvernement bi ak askanam ça veut dire il faudra que ñoom ñi nga xamante ñoo ŋànk réew mi ñu mën a taxaw ak askan wi ak xale yi waxtaan nag ñoom ci waxtaan boo xamante ni waxtaan bu dëggu la waxtaan boo xamante ni du lu ñuy laam-laamee ak lu ñuy làq-làqe le parent bi nga xamante ni moo jur doomam war a mën a taxaw war cee mën a bokk ndax bu ndee ba xale bu am 12 ans fukki at ak ñaar jàpp ni moom dafa war a teg ci te kooku toll ci njàng sa pose un problème y a un problème de communication ki se pose boo xamante ni dafa mooy benn. li ma si dooleel aussi. Mhm. c'est vrai mhm. xale yi dañu am désespoir mhm. mais benn instant aussi dañu yàkkamti xale yi nangu njàng. nanguñ def formation coûte que coûte bëgg nañu tekki bëgg nañu am xaalis ça aussi ça pose problème. loolu nag lool c'est loolu nag waxtaan ak yee ak askan wi waxtaan goo xam waxtaan gu dëggu la gu franc moo ko indi bu ko defee ñu xamal xale bi ni ko yow ci sa age bi nga toll. yow jàng jiwoo te sa morom bi jàngi moo ngi école. et t'es pas responsable de la misère à la maison te tu pas responsable te yow yow tolluwoo fu la sa waajur. ça aussi c'est important mais yow fu la sa la pression sociale. mais xale boobu tolluwut. fu ko waajuram ni ko yow yaa may jox dépense dëgg mais kooku fi mu toll mooy dafa war a defaru ab réew tamit kenn ku ne dafa war a xam rôle am dëgg la état day xam ni man li ma war ci sama askan mooy taxaw sama askan liggéeyal leen ngir ko mu am jëm ci kanam parent man li ma war mooy yar sama njaboot dundal leen mais xale bi li ko war mooy mu xam ni man xale laa dama war a jàng dama war a am xam-xam dama war a dem jàng ji métier dama jàngul ma dem def nangam mais foofu na il faut que nit ñi ñu delloo si waat nit ñi ñu kenn ku ne xam sa rôle bi nga war a jouer ci société bi mais Sénégal ci boppam dafa mel ni ab loo xam dafa pëkkatoo ba nit ñi kenn xamatul kenn ku ci nekk lan mooy sa rôle xale bi war na xam jeunesse bi man lii mooy sama rôle parent bi xam ko état bi xam ko loolu bu xasee am explication boobu leer mu nekk lu dëgg ñu ne nag yow nag mi nga xamante ne yaay ndaw bëgg liggéey jàng ji nga yow jàng nga ba nga waree jàng jàng nga jàngoo utal naa la métier nga ni awma école métier ñu la ah, kon de métier faw ñu defar ko nan lañuy def ba au niveau de nos région au niveau de nos départements te ñoom ñoo ngi ci fenn fu ci nekk am ay centre de formation yoo xam nañ ci formé xale yaana yaana à gogo léegi bu nu formé nag léegi yow nga ni léegi dama lay formé ji yow dama damay dem jàng ji ñaw wala damay dem jàng ji nekk menuisier wala damay dem jàng nekk menuisier métallique wala leneen ma jàng ko ba pare boo jàngee ba pare nag te amoo ay unité de production yoo xam ñoo nekk ci réew mi du ko produire est-ce que kooku dana liggéey pour revenir un petit peu ci li ngay wax na industrialisation bi ça veut dire que boo demee def boo demee ci école de formation ba pare ba xale boobu jàng ba pare te bu génnee amul usine boo xamante ni moo ngi fi boo xamante ni moo ko war a liggéeyloo kon kooku du liggéey